bon mën nañu wax ne làmb moo ñu boole làmb boole wuñu mhm. yaa ma dégg mhm. ndax Balla Gaye ba may daj ak Mamour bëri moom mhm. ba fekk ne bëri naa 9 sama ngemb laal suuf bëri naa samay morom yëpp daan leen bëri ak samay mag daan leen yaa ma dégg moom moo nekkoon sama rakk bi nga xamante ni moom laa war a bëreel yaa ma dégg yàlla mee ko ndam nag mu mérité ko nag da ko mérité yàlla mee ko ndam mais combat boobu coono yi mu am si làmb yëpp si com si combat boobu la commencé si combat la commencé coono ci bañ côté coow lu bëri maanaam man loolu du ma bëgguma di wax xam mais coow li maanaam maanaam jafe-jafe yi mu am si làmb yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp si combat boobu la commencé waaw. combat boobu demoon nañ sax ba ni sax ne ma combat bi du am Balla Gaye mi du bëre ak yow xoolal benn adversaire ba Gaston ni ma xoolal sama combat ak Zallo ñu dem ba dernière minute c'est le combat bi soo ko taxawaat waaw. lu boobu. problème bi lan la woon xam naa mu nangul woon bëri nangul man si kàlla man la woon ak moom. ak mm. Ousmane Diop ak mm. Baye Mandione mm. loolu la woon. man Ousmane Diop Mbaye Diouf Baye Mandione. ak Baye Mandione non non ak kii waaye man Ousmane Diop Mbaye Diouf ak Balla Gaye waaw ñun kàddu noonu la woon. ñun kàddu la woon waaw. mais moom nanguwul woon bëre ak ni ma nekk côté ci poul bi noonu. dem nañ ba toog nañ lu ay 4 mois sax kenn waxtu woon si combat benn combat lañ ma doon waxal. waaw dem ba dernier moment nag si combat taxaw ñëw mu daan ma. man dama naan dal ay doomu jàmbur rek da loolu rek mu daan ma tamit loolu laa ko jàppee ah. loolu ko jàppee léegi ci loolu est-ce que moom préparé ko yomb na. am ah. ak moom combat. jafewul comme ni nga préparé yenn mbër da nga koy préparé amul maanaam tey jii amul benn mbër bu spécial. mbër yëpp ay mbër lañ. tey jii man su ma su ma joxoon yaaw jàll ni ma koy préparé nga jox ma Bombardier noonu laa koy préparé. mais si pression benn la pression. pression préparé préparation yaaw jàll ak bu Balla Gaye ndaxte nit amul kuy bëri di xalaat di daanu. sama ko mbag bàyyi ma joxoon Balla Gaye mm-hmm. ba keroog mu may mbot noonu métti sama la daanu gëm woon dina daanu. loolu si mbër la nekk. Mm-hmm. mbër dañ lay jekku ba nga xam dañ lay jekku mais doo gëm ne da ngay daanu. yaa may dégg doo gëm ne da ngay daanu munu nekk am na mbër yu bari am te nañ bu leen waxee danaa duñu xam sax lu leen daan ñu xam sax lan moo leen daan làmb moo demee noonu. combat bi fan nga si ban côté nga ëpp woon pression côté mystique bi wala ci coté côté euh, bëri bi wala ci côté entraînement. man côté mystique mosu mos am pression. dama ne man mbëri ñoo ma mhm. li ma war a def def. Mhm. mais yàlla dimbali na ma ba sama làmb man soriwuma musuma am combat jóge fi dem Casamance ngir làmb musuma am comba jóge fi dem Gambie ngir làmb weesuuma sama dëkk séeréer yi Joal Fadiouth Palmarin Caajaay ñooñu jeex na. léegi wax bi nga wax léegi dafa am wax benn wax boobu wax léegi te leeraloo ko trop. Mhm. Euh, si combat Balla Gaye problème yi nga am si lamb yëpp si la démarré lu tax nga wax loolu. waaw si la démarré xam lu tax ma la ko mooy tey jii lépp loo gis day am fu mu démarré. Mhm. mais sama problème yi am si lamb yëpp foofu la démarré daal. est li nekk boobu li combat boobu nekk sa première défaite moo taxoon. loolu non non avant moom di bëri la commencé. Mhm. avant may jàkkaarloo moom du moom nag xëy na yàlla dafa dogal ne Euh, nit ku nekk dund ku nekk. am na fu yàlla dogal say say mbir. yàlla suñu suñu borom foofu la ko dogal 2007 boobu la ko dogaloon waaw. Balla Gaye njëkk la daan. moom njëkk daan si làmb. Hmm. instant sa première défaite bi nga daanu noonu. Hmm. lan lan nga yëg. dama alhamdulilah dama sant yàlla. mu ñëw. Hmm. yëkkati ma kott ma jooy. ñu ñu saafonte ma ñaanal ko ne victoire bi nga am yaa na la jik loolu lañ sekk maa ngi mu jeex. nag boobu léegi jàmm lañ sekk ma gis dama jox cër. ma gis tamit naa bokk na si mbër yi ma gën a jox jër mhm. bi ngeen bëree pare la nga gis ci moom est la mhm. tey tamit mbër la mhm. tey tamit mën na bëre wax dëgg yàlla mën bëri naa maam moom bële ba bare comme noonu ko mbëri ni dee dépassé wu ma benn yoon dépassé wu ma benn yoon waxuma lu waxuma lu ñaaw man sama digg man ak moom waxuma lu ñaaw xaw ma nag moom ñeneen ak yéen mais maam moom bu ñu waxante lu ñaaw waaw te it fekk daje nañ à chaque daje damay dem ba dama ko romb nga xam ne moom bu rombee damay jékki-jékki day taxaw wàcc oto bi ñëw retourné ñëw bu fekk ma fa taxaw nuyu ma waxtaan ak man dem te amul beneen mbër bu ma ko sëkkal fii nii comme maanaam lu ñu sëkk ma moom noonu amul sëkk daw ma këram nag daw ñëwul sama kër mais fu ñu gisante dinga xam ne ñaar ñi am lu ñu sëkk ñoom ñaar voilà solo voilà ñu gis ne Balla am ngeen bëri ngeen mhm. instant bi mu signé trois trois trois contrats mhm. noo gisee affaire boobu nekk xam nga tey jii boo am am noo ci waxee promoteur dañuy mere mais loolu amul benn sens lu tax man la amul sens mhm. wax naa ko fi sànq tey ji da ngay jël benn benn benn mbër mu lekk ñetti avance si ñetti avance yooyu noonu nga bëree premier combat bi daan bëree deuxième combat bi daan troisième bi nga war a bëreel keneen daan ko ko amul benn njëriñ si yow nga xam te yow mi ki daan nga ko ngeen war a bëriwaat yéen ñaar combat bu nuy mel day mel ni comme nag euh, euh, euh, sommi bu amul suukar bu amul xorom ak suukar lamb ji du neex te bu wër na ma na ma yàlla jégal lamb yi bëri teg nañ ko mais matul am doo am ndaxte du neex amateur duñu la séante bu njëkk bi làmb melum njëkk bi moo dàq sama combat taxaw na sama combat diw la diw laay bëreel mais tey damay damay bëri xaadim damay bëri waa Lutte TV damay bëri waa ñële tey jii waa Lutte TV tey jii di war a bëri xaadim te xaadim daan naa ko xaadim daan waa Lutte TV ah loolu amatul amatul sens combat bi moom lu amatul sens du am benn enjeu yaa ma dégg man daal lu mën a gis mooy mbër na bëri làmbam bu jeexee ñu bloqué bëril mbër mm. mais mbër bu jël cinq avance mm. te si bi cinq avance am na mbër yi nga xamante ne yow mii mm-hmm. am ni ngeen dajee combat bi kenn du ko seetaan mm-hmm. kenn du ko seetaan dañu dëgg rek la ñuy wax nag mm-hmm. promoteur ñoom leen arrangé la def mais ñun mbëri tamit war nañu xam lu ñu arrangé tey ji man dama jox combat ne ma sa combat exemple yaag Baama Joon yaag yaag Balla Gaye yaag Modou Lo mën waa d'accord moo bëri ak Balla Gaye Balla Gaye bëri fee daan ak beneen mbër maanaam Balla Gaye bëri exemple ak ak ak Baama Joon daan ko mën moo bëri ak Modou daan ko war a bëriwaat ak Baye Mandione mi ñu daan. waaw ah, ki jóge après combat bi am benn sens. am na seen xaalis nag ñu ngi koy joxe man ku ma joxoon ma jël tamit de. Mhm. mais xam naa dinaa si bëri bëri bi nga xam te kenn du ko si ànd si. ndax day mbër bi nga xam te ne. Mhm. tey jii booy xool. Bombardier euh, Balla Gaye combat am ak Bombardier taxaw na. Ah, combat am ak euh, kii taxawaay. Euh, Boy Niang waaw combat ak biir Gris Bordeaux taxaw. waaw ah. tey jii ma kii combat la ma koy tax mu neex ma ko Boy Niang mhm. leen kese tax mu neex. kese Balla Gaye daan Bombardier lu fa am lu dul loolu bi day mel ni comme gerte caaf bu am lu xorom dañ Sa Thiès Moussa Ndoye ah. exemple ku si nekk si defet la jóge te pourtant combat bi neex ñoom si defet kenn ki war a mhm. ko war a dem saako mhm. dugg si bi mhm. mais bokkul ak mbër yi nga xamante ni yow da ngaa jël avance mbër bu bëreegul te am na combat bu muy bëree bokkul du benn am na solo léegi fa la ñuy jaar dugg ci combat bi nag techniquement. Uh-huh. Balla Gaye Bombardier nooy analyser combat boobu. Ah, Balla Gaye Bombardier bëri nga ak Balla nga ak moom mais duñ benn. Mm-hmm. tey Bombardier. Mm-hmm. dafa nekk mbër bi nga xamante ni pour nga daan ko technique dina jafe de amagu fi. pour si technique mu lay buux ba daanu rek. wala nga nax ko nga sàcc ko rek daan ko rek waaye jàppanteeg moom ni daan ko technique kenn moo ko def mu yëkk ni te dañoo xaw a dañoo xaw a tolloo poids moo ko jàpp peese ko dóor ko fay mu ca xabal ko mu daanu mais ku kooku noonu kan ma fi daan Bombardier beneen jël bu dul jël boobu noonu baa booy ta daa doo mbëkk bëriwul ak moom tànk bëri jël mbëkk ko mu toog bu dul kan ngay gis tafaatin da ko fay dóor ba mu ko daan yaa ngi dégg te nag moom lenn lenn lenn la mun def pour daan ko xam na ko li mun def pour daan Bombardier xam na ko mais comme lu mu bëri woon ak moom bu njëkk ba du xam na xam naa ñàkkul mu ngi liggéey waaw ah, ma aw ma droit tamit na ko nag bëri la nii Bombardier du ma entraîneur ba ñu ma Bombardier te tamit bon mënu ma wax ne bañu bëgguma mu daanu mais ñoom ñaar seen làmb jooju bu amee damay tox ndaxaw neutre ka seetaan ku daan ma xam ne yaa man waaw. bale boobu mais daal ANCAR daal comme baam daal bu su bëggee génn du comme nu mu bëree moom ba waaw. mu bëree ba taxaw ma jëm boo ma jëm ma ñëw attaqué. waaw dafa nga ah, mhm. taxaw mhm. a yëng ñëw dal munu nekk mbër bu mel comme nga nangu déplacé wu mhm. dëgg di ko juumloo ci biir làmb pour daan ko mbër ñu ko daan yëpp dañ ko déplacé wu mais taxaw yëng benn place ñoo dox sa kaw nga taxaw benn place pour pour def sa ko si toog la ngay mujj ndax dafa diis jaar Bombardier mbër leen bi nga xam ne da nga leen dóor doo sëqatal leen xaw a dugg ñu ne tën nga génn ñu arrière bu ñu arrière daaw genre maanaam mbër li nga xam te ne dañoo diis a diis mm-hmm. xam nga am na mbër yi nga xam te ni mënuñu arrière tey Bombardier attaque la mën yow ñëpp xam nañ ko si moom xasuma ko nag bokkuma ba Balla Gaye at arrière attaque bu def nii ay mbër attaque nekk mu duma leen <laughs> yaa may dégg mais daal ak Balla Gaye ak taay bu mu am ak ak relance bi mu yor nii lenn moo ko si mën a génn déplacé ko jumloo ko pour daan ko. pour daan ko waaw Balla Boy Niang. Balla Boy Niang loolu laa lay wax nii Balla Boy Niang lenn laa si mën a def Balla daan Bombardier Boy Niang Boy Niang daan Tapha Tine kese mais fekk loolu amagul mëna goo si wax dara te Balla Gaye bu daanul Bombardier tey jii Boy Niang ñaan ma ko yàlla sax da xam boo waxee sax ndax man waa Pikine laa xam la Pikine mënu ma ko contre mhm. moom papam sama xarit la te mbapat papam laa njëkk a bëre ma ne bëri yi ma jàng si papa papa mbapatu déggoor laa ko jàngee mhm. moom xam na ko te mu ñuy déglu yaa ngi dégg def naa lu nekk mbapatam kon maanaam combat boobu loolu may tax mun a am sens Balla Gaye daan Bombardier Boy Niang daan Tapha Tine combat du ko dàq si àdduna mais bu demee neneen lu noonu combat bi du neex. loolu moom bu demee noonu bu demee ni nga wax nii. Mhm. ku ci nekk jóge ci victoire combat bi noo xalaat noonu la nar a demee. bëri combat bi dafay neex combat combat Balla Gaye ak ak ak ak mhm. far force bu la neexee dinañ bëre bu la naqaree dinañ waaw. dañu bëri te it combat bi nga xamante ne dafa garaaw ndax tey jii xanaa nit du nangu nag nit daan sa rakk daan la. loolu nag moo si am enjeu si làmb mais luy tax làmb ji gën a neex nag mooy Balla Gaye daan Boy Niang daan. mu gën a am enjeu mu gën am enjeu voilà. am na solo. waaye Gris loolu. waaw combat bu du neex du am enjeu. du Balla foofu la ñuy jeexalee. Gris Balla. combat bu njëkk ba loolu bëree léegi de. ñooñu ñooy xaar ba combat bi jege ñu soog ci pronostiqué. ñu soog ci pronostiqué ñoo def la woon noonu déwén la ñuy bëri ji. am problème koy nangul. waaw léegi. Mhm. beneen ah jeex na. waaw mën nañu ko yemale foofu. déet yamagul foofu boobu la ñu a kii ma wax sama xarit ak sama pote. waaw waaw loolu tàggoo après léegi Saloum ka kii euh, euh, Coly Faye. Mhm. mujj gi. waaw kàddu gi ñu bàyyi la nga tàggoo. Mhm. waaw di gërëm rek di gërëm di sant bu baax a baax. waaw di gërëm samay mbokk yëpp nag ak samay xarit. waa di gërëm sama sama mag yi ñëw tey seet si ñu. xam nga leen gërëm bu baax ñu mel ne comme ñoom laxu ñoom naan la Kunta ah, ak ñoom ñoomin abdu ñoom Mor Seen am la ak Mbay Jaw ñoom Babacar yi yëpp ñeneen ñi sëpp dëkk waaw maa leen di gërëm bu baax si yenn bi tey aussi tamit di di di wax waa waa waa waa kiin sax waa waa waa waa code code 21 yi ak code 20 yi ak code 19 code 10 yi nañ waajal ñooñu xam nañ xam nañ xam naa waa code 10 ak code 21 yi ak code code 17 yi nañ te xam na combat incha allah léegi mu taxaw. Mhm. bu taxawee nu ñu def nu ñuy def code 10 code 21 yi. nañ def noonu mbër bu ñu bëreel rek waaw. am na ñoo xam nañ ñi may waxal xam nañ man xam naa xam naa mhm. waaw di remercier waat làmb ji lépp. Mhm. di ñaan tamit bon balaa tabaski bi tamit yàlla am combat. waaw yàlla na am combat Saalum Saalum war na neex de. ah waaw moo ko si moom la des. moo koy fu nekk nii wax nga wax rek buggee. Hmm. sax ñu bëree ko ko si si diggante ñaari. benn tali noonu. ku fi booy fi Paa bi doon defee bi. Hmm. Euh, Père Boy Bambara. Hmm. ñu bëree ko foofu bu bëggee. kon nag pare nga pour Saloum Saloum. du pour Saloum Saloum kese de. pour ñëpp pare naa pour mbër yi amul combat yi yëpp. Mm-hmm. waaw ñi ma la wax daal du ma bëri ak ñoom. Mm-hmm. ñooñu laa dul bëri mais à ñu doon ñoonu. kun ma si jox mu bëri yow ak koo munti doon nag waaw. am na solo Coly Faye numéro un di la jaajëfal bu baax ci disponibilité bi vraiment. waa aussi euh, tamit sama turandoo bi tamit. kulifay Faye waa waaw Coly Faye 2. ñaanal mu daan général jël bu rëy. Mm-hmm. te bu mu am benn coono. waaw. loolu daal maa ngi ñaanal mu daan général jël bu rëy. Mhm. waaw fu àgg fi moromam àgg tamit. Mhm. ndax bon mbër la. Mhm. déggal na ma. respecté na ma. sama point la. dëgg la am na solo. loolu daal laa si doon ñaan. jaajëf champion gars yi dinañ jox rendez vous ba beneen bu mu feeñ na.